mbokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal noonu yàlla boole jëkkal tomb bu ñuy fàttalee dañu koy aj fàttali gu jibe woon ci kanam kilifa gi fan yi nu génn bi mu dajalee njaboot gi yépp am na lu mu waxal boppam am loo xam ne kayit wuñ jàng ci kanamam la euh, waaye kayit wañ jàng nag ba mu noppee nattukaay yi ñuy natt lan mooy sunna nattukaay boobu mën nañ ko caa jëfandikoo mooy fekke na bañ koy wax waaye weddiwu ko bokk na ci këyit wuñ jàng ci kanamam donte déggiguñ ko ci làmmiñu sëriñ bi waaye jàng nañ ko ci kanamam mu ne cell dañuy jàpp ne ànd na ca bokk na ci këyit wa lañ ca jàng fàttali gu am solo moom la jëkke mooy kuy wéye ndigal ku ne ndigalam wala boo bëggee def dara nga laaj ko ndigal fu ñuy noddeti nodde na nga ni tekk bàyyi la nga doon def te bu noggu noddu gay daanu rek dugal ci jàkka ja jëla gën a jege loolu nag bokk yi day fàttali bu am solo goo xam ne ginnaaw woote na ba ñëpp dikk day mel nekkoon kon génnewut kenn muy tomb bu am solo eh, xel dana daj ba xam mbaadu ya ca des dañoo amul solo waaye bu ñu fonkee ponk bi yaa ñuy tere day yomb day yomb bàyyi ndax kenn dutu am ak jotam ndax diggante yi waxtu yu julli yi nekk ku jëfandikoo ndigal loolu ci koy wéye ndigal bu ñu nodd suba day fekk nga ne jonn taxaw waaj ba jekk eh, lay jiitu jullik suba ak la cay topp digganteem ak tusbaar leneen xaju fi moo xam muy góor walla jigéen diggante tusbaar ak takkusaan it leneen xaju fi lu dul lu baax rek diggante takkusaan ak timis noona timis ak gee waxaale wuñ ko te yooyu ya lu ci nekk ak la ca war a topp ak la ko war a jiitu su ko jullit bi taxawee su gee ba teg ca lam tey war a teg dana tal leneen lu dul di dox ci yeneen ndax wolof day léeb ne boroom gët yu neexu tal na lu ne ba mu des tëb ay kàmm moo tax tomb bu ama am solo la boo xam ne Eh, am na aayaat yu ma jàng léegi bi ma jëkk a jàng mooy suñu boroom daf ne bu leen fab ay caaxaan di ko woot wodde dëgg ba nga xam ne ku seen dëgg ga day defe ne ay caaxaan kese la wala talbisul xaq bil baatil waaye lu ngeen xam muy dëgg it ginnaaw leer na ci seen bopp na ngeen ko wax ak lu leen ca mën a fekk daa mel ni jiit na keroog ku def baax na ku deful jaan wàcc na waaye nag kii taxaw di suñuy digle it yàlla daa wax ak moom atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum mbaa doone gaa yi dem leen rek déedéet danga naan kay lañ ñu dem jiituñu topp ca bokk yi kër yu bare bari soo demee ak i pénc néew nag pénc wala kër goo fekkul jàkk la gën a gaaw ci nit ñi mën a tënku ci diga ndigal loolu nag mooy fu fi mën a fu fi nit mën a dëkk bu dee am péncam def na fa jàkk wala biir këram na ko jëkkee na def saa bu noddee lu mën a nekk mu génn moom jiitu nit ñu topp ci moom mu dugg ci jàkk ja bu dee jiite baax na bu jiitul kay jiite mu topp ci ginnaawam bu ñu sëlmalee sëlmal bu ñu ko dee def waxtu yëpp dana mujj nit ñi tàmm ko mu neex ci ñoom wa antum tatluna alkitaba afala taaqiluun bis bu set nit jàng ci alquran aqimu salaata aqimu salaata aqimi salaata aqimu salaata ñépp ko bokk waaye aqimi salaata kenn lay waxal kon kenn mucc ci waaye nag nee na waxtu julli jot rawatina tisbaar ak takkusaan nit ñogor ñogor yi dox nam mën a doxe dugg ci jàkk ak a ci xol boo xam ne bii nangoogul wastainu bi sabri wa salaati wa innaha lu diis la illa ala alxaashiin ñim woyof toy ñoom mooy koo xam ne kii ab xolam a ngay dund kooku moom fu mu dégg nag am jàmm yàlla na nu ci yàlla boole illa ala alxaashiin mu mel ne dañ koo laaj ñooñu moo ñan xaasha dëgg mooy kan mooy mu ne allazina yazunnuuna annahum mulaqu rabbihim mooy ñim wóor ne lu àdduna yàgg-yàgg danañ teew fi kanam seen borom mu rek leen loolu nag xool buy dund moo ko mën a teewlu saa su nekk saa su nekk muy teewal jëmmi boromam ci kanamam bis bañ koy àtte ñi nga wax ne am na kilifa googu ab sëtam da ko doon tooñ naa ko yow kat foo jëm léegi day mel ne danga doon buur escorte bi mooy jiitu ña ca topp topp ca kilifa gën a leen lool de li may fàttali mooy bis mooy bis bu may ñu ne kilifa nga ko wax ñu ne lam wax ne lam wax ne mooy li mu koy li may bis bu ñu ko yànnu di ko yóbbu ci armeel rek la xelam di dem kooku daa mel ne jamono yooyu mu xol baa ngi dund moom ndax gisatu dara lu dul la ca kanam yàlla nag waxaat na ci alxuraan ne jullit yépp am nañ liñ bëgg mooy texe nañ dem nañ aljanna ba noppi jullit yépp tàmbalee kekku mu daal di cay ràññale alladina hum fi salatihim xaashi'un ñi nga xam ne saa bu ñu noddee ñu ne tekk bu nodd ga daanoo ñu lagg bàyyi lañ doon def lépp waaye loolu bàyyiwul góor ak jigéen ndax boo demee ci alxuraan it da nga fekk suratul ahzab mu doon wax ak soxna yonent bi alayhi sallallahu alayhi wa sallam radiallahu anhum wala an anhun gaa yi duñ jéggale dara ay soxnaam radiallahu anhun wa qarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasula mooy dee leen toog seen biir kër yi ndigalul suñu borom loolu jigéen ju ko dégg kenn du la joxañ ndax di su la gis ba dina joxañ su ngeen toogee seen kër su génn mënta ñàkk bu leen waaj door a génn te ci jigéen yi réew mi néew na si ñuy waaj ba jekk toog dana ci gis koy waaj sax doomam naa ko foo jëm jàpp ne waajtaay mook dem ñoo war a ànd déedéet mu ñaareelu ndigal ci jëm ci jigéen ñi leen toog seen kër te bu génn mënta ñàkk bu ñu dee génn na yam rek seen waajtaay moom na yam ca biir kër ga waaye bu ko mbedd mi xam te it aqim na salaata saa bu ngeen mënee julli bu leen ko góor ñi yóbbul bu ngeen dee liggéey it bu génne asaka jotee bu leen ko góor ñi yóbbul yéen ak góor ña yem képp ci analu yàlla wax ak lu yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam kon bees fàttali la rek fàttali la waaye nag alquran moo gën a xam nit ñi ñëpp ndax kiy wax ak nit ñi ci alquran moo gën moo bind nit ñi nee na nit ñi saa booy wax naan yàlla nee na nee na nee na nee na day mujj nga fotonqal leen fotonq mooy day mujj dutuñ ko jàpp waaye dañ lay jéppi far boole ca waaye saa boo tàmbalee wax leneen wala ci keneen walla ci leneen dañuy bëgg nga gis sax far ñuy jooy léeg-léeg ndax mbëgte mu ëpp waaye tiitaange jooylootul ñu bari ida dukira allahu waxdahu isma'azzat qulubu allazina la yuminuuna bil axira allazina la yuminuuna bil axira moom mën naa doon ab jullit mooy koo xam ne rafet na njortu ci ne lépp dana baax te defut dara defut dara mi ngi mel ne ku toog ci këram xëyut joxe dara ba noppi gëm ne lam bëgg a aña lay añe buñ ko ko yekkalut dey mën naa bañ añ te léeg-léeg yàq ab aw des rek lay doon ñooñu dañuy dem ba soxlaatuñ ko te loolu ku yor deretu gor war na ko bañ di dunde ay yàq kese waaye wa ida dukira alladina min dunihi ida hum yastabshirun dañuy bëgg lool léeg-léeg sax mu jox mu jaral leen joxe alal waaye suñu boroom bi mu digalee laa yu suñu boroom wax ju nekk pay ga ma nga ca pegg ba ci ñàkk koo def eh, daram du neen dara amul leen lu mu defar loo xam ne danga nga doo ci gis dara saa bu teree ak payam ak ca pegg ba mooy mbugal mu metti ma ñii jàngale nu ñuy làggale nit dañ naan am na foofu boo fa dóoree nit ki bu ko fa loxo dalee wala tànk day daanu rek yam ca mën naa jugaat waaye am na foofu bu ko fa dana na waaye am na foofu bu ko fa dana dana tekk ab di duut xàmmee kenn faw ñu ximmili ko waaye dana xam am na foo xam ne moom duutu jóg moom fa lay doxee xaar bokk yi nag loolu gannaaw nit a am moom a pexe waxaante wuñu ak suñu borom mu tere kenn ku nekk ak la muy tere bu ko defee rek am na ab yaram boo xam ne bu ko dalee dana xam dana xam ne dal na ko am na jàngalekat bu nekkoon Tuubaa ci kilifa yi la bokk su masaan di xupp nit ci ak ñàkkat mokkalam wala ak ñàkk tareem wala mu def leneen loo xam ne wantal ko laaj na ko ki muy wantal mooy di teg ay bant ci kaw ci kaw aw yaramam ab yar xalaatu yar yi mu koy teg waaye yar ba muy xalaat mooy yarub tàggoo ba su ko wantalee ba ne ko wax demal bàyyi naa la su ko dabaatalee rek buutul dana àgg suuf xalangu lu yàgg a jóg kooku nag suñu borom wax gën a tàng loxo fuuf moo tax mu ne ku yàlla jox ubbil buntub xéewal booy jaar ba mucc ëllëg boo yar ba defaru ba mën a defare soo ko wanee gannaaw yàlla du la bàyyi nga dem noonu def naan la nuus ëllëg ndax buntu boobee ubbi mu ubbi woon bari nañu ci waroon a jaar mu bàyyi la ko fa réserver la ko mu jóg mu jóg ko jël xamees na ne fi mu nii ku jënd billet war a tukki ba bis ba jege si mu woote na mënut a dem palaasam boobee mu fa bàyyi woon da nga def ni ñu ko bàyyi mu dem dañ naan ko da ngay fay nangam. ndax dañ ko fa bàyyi woon ngir yow wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma jaa'atu fa inna allaha shadidul iqaab moo tax biñ fàttalee julli day tomb mat a taxaw boo xam ne euh, jar na waxtaane ay fani fani fani fan rawatina nag woo ba ñëpp di kenn di sut ñu tudd tur ya ñëwoon yépp mooy ñi nga xam ak ñi nga xamutoon ñëpp keroog tudd nañu seen tur ñu si bari kon bu kenn dem ne moom taxutoon muy wax moom ñëpp la waxal julli mooy kan julli mooy chamatal qurubaat chama bu ñu ko waxee ci jëmmi nit ki mooy loo xam ne ku seen nit ki seenaale ko ay gët ku seen nit moo xam gët yaa ngay xool wala xool waaye danga nga seen ay gëtam moom ak bakkanam ak gémmiñam loolu moom ku gis nit da ko gisaale kon julli ci ab jullit mooy chamatal xurubaat mbooleem yi ñuy wur yi ñuy wër di ci jege di jéem a jege-jege suñu borom julli mooy seen kilifa ñoom ñëpp waxtaane nañ ko lu bari fàttalante ci mooy benn ponk bi nga xam ne bi ko yàlla di jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko woowal boppam yónnee wut ci moom kam yónni woon sax fekke wu da ko ne taxawal foofu ma wax ma gisee kii waaye suñ ko dee misaal ci jëmmi nit ngir nit xam ko day mel ne bopp ci nit bopp boo ko déggee mooy bi ëpp cër bi ëpp ay yëf yëfaan bopp bopp bu luy dund lu nekk ca la yóor ga nekk ca la nopp ya nekk ca la gët ya nekk ca la gémmiñ ga nekk ca la bakkan nekk bakkan mooy kan mooy ki xàmmee ay xet léeg-léeg mu fóon dara dara bakkanam bëggul mu xeeñ ko léeg-léeg mu dara fóon dara delloowaat ko ci bëgg mu di ko xeeñ waaye gémmiñ mooy kan ak làmmiñ làmmiñ mooy ràññee la ràññale cafkañ yi ak i tuñ yooyu yépp ci bopp la nag euh, nit mën naa ñàkk benn ci yooyu nekk ci bopp bi te du dund mën na naa mën naa am gàllankoor ci nopp yi wala ci gët yi wala ci gémmiñ gi waaye bopp bi tàggoo na ak yaram mi moom tur wa soppiku am néew lay tudd moo tax julli ci diine yonent bi sallallahu dafa mel ni bopp ci dund ju nekk luy dem ak a dikk nit ak yi ci des ñiy tëkku nit sax ci leen ragalloo faatu dañ naan boo defee nangam nangam danaa tàggale sa bopp ak sa baat kon mooy dama lay rey ku nekk xam na ni bopp moom ku ko tàggale jëmm ja nekkatul jëmm tuddatul jëmm ja am néew la tudd léegi moom la ñuy ràññee kii na ci lislaam ak ki ci nekkut kii na ci lislaam ak ki ci nekkut moom la koy ràññee moo koy xàjjale mooy fajwa bi dox seen diggante fajwa boo ko déggee mooy diggante ñaari ñaari tabax waxum fi faja fi fajwatin minhu dalika min ayatillah wa mooy diggante ñaari étage yoo xam ne seen diggante fukki mètre ak juróom-ñaar lay tollool jëm ñaar fukki mètre étage taax mu ci nekk doon fukki étage nga xam ne tëddee fii dem fee boo koy xool day mel ne lu yomb lool te pax mi ne ci seen diggante xóot lool diggante iman ak kufur nag julli moo ne ci seen diggante waaye sëriñ bi nag fàttali na li mu war a fàttali kon day mel ni jëmm ju amut bopp du dund moo tax julli di ponk bu am solo ci diine gannaaw sëñ bi tudd ko faw ñu tudd ko moo tax duñ wax ku bañ a julli waaye ku wayefal julli moo ñu tax moo ñu tax di wax ku wayefal julli maam Cerno Birahim ba ko sëñ bu mag bi ne moytu leen néegi jigéen ñi dañ ko ne moo ne moom bi ci néeg ndeyam lay dem mu ne moo tax may wax néeg ndeyam kuy tere néeg néeg ndeyam ka ka ca des taxul néegi ñu ci des taxul ñuy moom moomu di sëñ bi mag bi nee na ku bàyyi lam doon def dem julli ji bu mu jàpp ne lam doon def dana ko rëcc business ba mu nekkoon dana ko rëcc déedéet yàlla dafa koy téyeel ba mu julli ba noppi mu jox ko ca lu ëpp lam ci doon yaakaar waaye ku bàyyi julli dem def dam defe leneen julli raw na ko loolee du ca am dara man shaghalatu dunya man shaghalatu salaatu an al intafaa biha biha mooy julli wa bil waaye ku bàyyi lam na def dem julli ji moom lam doon def bu mu jàpp ne da koy raw yàlla da koy téyel ba mu julli ba sëlmal mu dem fekk nu gën la ca bëggoon a def moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na bilal ba tàyyi ne ko bilal jógal noddu nit ñi ñëw loolu mooy saa bu tàmbalee xalaat xalaat yi àdduna rek nga xam ne ak nit a fa nekk danaan bilaal nodd jotagut mu ne ah kay mu ne ko noddal ndax wóor na ko ne bu ñu xasee ba tàmbalee nodd xel mi day génn fii fépp dem fële fa sunu borom subhanahu wa taala te loolu mooy faj ak ruux lam doon wéré di wéré di it ci wéré dem gu mujj googu sallallahu alayhi wa sallam fuñ masaane allahu akbar allahu akbar yàlla salaa yàlla salaa bërit ja moom ñi ñi koy ragal dañuy am yaakaar defe ne wér na waaye da ko mënta muñ day defe ne moo fa war jëkk te moo ne boobu mën a tut sallallahu alayhi wa sallam sëñ ma bañ i jàng wax na ne sëñ bu mag bi firi na aayaat yooyu ak xikma boobu mu génne nee na ba ñuy sañci Mbakke Baari Mbakke Baari mi ngi ab dëkk ngi ab dëkk bu am ba léegi si ba ñu koy sañc dañu fa jiitu sëriñ bi mu ñëw fekk ñu takk ay néeg ba àggal mu ne néeg bee nag ñu ne ko nangam ko tax a jóg bee nag nangam bee nangam bee nangam ba àggal mu ne waaw ana jàkka ja ñu ne ko ah dañ doon nekk ndigal mu ne dindi leen néeg yi a takk tàggal leen ko ak seen i àndal yëpp ba mu doon ñax kese ak laat kese ak xànc kese lu ne tege fa mu tege def ko mu ne acca taxawal leen ba noppi ñu taxawal jàkka mu ne waaw kay su la neexee ngeen taxawal ay néeg su la neexee ngeen bàyyi ndax am na ñuy dund te dëkkuñ ci ay néeg daan na leen lu ngeen mën a defati bu julli ñëwee na ngeen ko bàyyi dem ca daan leen di nettali luy firndeel ne man chagalatu salaatu an al asya intafaa biha wa bil asya ku fa ne ñukk la nga doon def dem julli yàlla dana la jàppal la nga doon wuti te xamoo lu doon foo ko doon jële mu ne sëriñ bi na leen nit a ngi nii koo xam ne wenn warax la amoon warax mooy mbaam ci la daan sëf ñu di ko fay mii noon kër gi lool bu mosaan jofi bu jant bi lang rek mu ñëwal boppam ci kër gi bi jant bi lang gisut warax wa soxna si ne ko daa mel ne reer day amu fi tey war a xam dem na reer amagu fi te gone yaa ngi jooyoo waaye mu dégg ak noddu mu ne fa ñukk yaari yitte yooyu reer ba amagut ak warax wareer te ñëwagul mu war koo wëri ba mu jullee ba sëlmal nam daan jullee ba war a a nekkee ci kër gi ak xel mu dal ba mu sëlmalee rek la ndog ment bukki walla gaynde di dàq warax wa warax wa daw ba ne saraax ci kër gi kon daa mel ne ndog ment da ko doon indil waaj ba mu ne saraax mu wàññiku ndax ci kër la doon mooy daa mel ne warax wa ñëw na de ji yitte defa jona ka ko doon soññ soññ ko mu ne ko nañ jàpp ci yàlla rek si tuut ay jëgg nii wata yi di sëfe ay conteneur di dem dëkk dëkk noonu la aw nit daan sëfe ci ay gëléem di dem dëkk ak dëkk yóbbu nit ñi seeni yëf ay jëgg jaar fa bay bëgg romb daan ne lii de ab kër lay niroon suñ Tuubaa mooy wax ñu ne ah kay kër la de ñu ne kër la de ñu daal di fay nuyoo mu fay leen ñu ne ko dañoo guddee bëgg fu ñu fanaan mu ne ay ca waaye daal di amu fi ñu ne ko loolu jafe-jafe daal di toggaaleel ko moo ko waa këram ba ñuy dem ñu bàyyil ko fa lu doy sëkk dund bu yàgga yàgga yàgg aajom faju na ci ñaari anam lam yaakaaroon ba war koo wëri muy war a xam wa ndong ment andil na ko waaye reer boobee mu amutoon ni reer boobee bàyyi gam ko fa bàyyi dem julli ji xëccal na ko yeneen i reer yu gën sax yem doon reere dem su ko defee kon soññee boobu bu kenn jàpp ne bokku ci dañoo lim ay tur tudd seeni tur ak seeni sant ñoom ñëpp ne diw teew na diw teew na diw teew na daal di wax te sëñ bi newut boolewuma ci diw ñoom foofu nag bokk yi fa mat di taxaw la layoo na ba noppi moom layoo na de nañ gën a fonk jàkka yi ak jumaa yi sëñ bu mag bi rëdd na loolu ki mu ko jëlee ci moom kim ko jël da koo fekke aw rëdd wu jub xocc ne kenn ku nekk na xool ba xam rëdd wi fu mu dënge nii nag ñu def kilifa léegi lu mu wax ñu ne ko noonu la Sëriñ Tuubaa duntoon loolu wax na ba tey ñu teg ci baat wax na ba tey ñu teg ci baat waaye lam doon nag mooy ab jàngalekat jàngalekat faw ñi may jàngal naa ko mu ak kayfa ak ay naa ñu ne ko jub xocc la def de foo ko mën a xoole da daa jub mu ne jullee nga noonu ci ak jaam ci ci ci pas-pas jullit bi su fonkee julli di ko def nam ko war a defe nam ko mën a defe ba ba mu koy defee nam ko mën a defe su ko dee defee nam ko mën a defe ba ba mu koy mën a defe nam ko war a defe ba ak julleem jub xoj su yowmal xiyaama lu dëngoon ci moom julli dana ko jubal waaye nag ñàkk gaa fonk moom musiba la ndax lu mënoon a jàpp defe ne ci jub la nekk bu ñu xoolee julli jubutoon loolee ñàkk jubug julli ga moo koy dëngal ba mu doon lu dëng mu mu jëb safaan yàlla mu ci yàlla mu sol moo tax atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum mbaaru da ngeen naan gaa yi dem leen ma fekk leen fa wala dem leen ne leen déedéet ku ci jàkk nekk ci bintu këram wala ci biir këram bu muy rocc ko di julli wala muy yable yable baax na lool waaye ku dem boppam la demal ku ci jàkk nekkati ci biir këram wala ci péncam na jëkk jëfe ndigal li ci moom lu mën a jàpp bu julli jotee na ko bàyyi dem ci penc ma wuti jàkka ja ndax bu jóg nit ñi di ko topp am na ñoo xam ne seenu ñàkk dem jàkka ja gisuma diw di fa dem donc ma leen tey dem kon loolu ab layoo lay doon ëllëg itam yal na nu ci yàlla musal moo day metti lool léeg-léeg ci xolub kuy dund wala pas-pasu kuy dund ñuy julli ka julliwut moo xam lu ko tee julli kenn ku nekk moo xam matt yi nekk ci ab lalam waaye nag bokk yi nañuy meew nañuy may war ma tuuti ñuy julli moo xam muy daaira boo xam ne dañoo am tuur rajo yi sakk luñ ko waxtu wuñ koy war a wàññi donte dañuy julli sax am na ñoo xam ne dañ koy fanaane bu bët set wicc ña daan déglu ay noddu ci jàkka yi sax duñ déglu duñ déglu duñ dégg noddu ya na ñoo xam ne ci wetu hôpital dañuy nekk nit ñi bëgg a tuskare aku mettit ubbi rajo yi ba sës euh, di wut lu baax nag ba far ëppal def ko ni Demba Waar Njaay ma doon bay topp waar mu neex ba far daanu ci géej ga ab juti war na ko moytu te dëkkandoo euh, daa foor lool kenn xamut ñaata tuur moo am ak ñaata guddi yoo xam ne ñi koy def lu baax dong lañ cey wut waaye léeg-léeg mu ëpp ndax fexe ba ñuy déglu ay nodd di ci xam waxtu dégluwuñ noddu ga te néewuñu ay ca leen doguñu la ñuy def bu julli ba noppi it ci ndigalu sëriñ moom ne leen wóor ne ku ci nekkati ci ab tuur wala ak màggal it topp njàngam ba fajar jot ba yiwu ko dem julli ci nekkatu ci ndigalu sëriñ bi na fi bàyyi sëriñ bi ay xasidaam te dem wuti yeneen xasida yu muy jàng moom ba faat ca waxtu julli yàlla na ci yàlla mu musa bokk yi bis penc daa yàgg ña nga tàmbalee xam dara nga xam ne duñ ñëwaat mënuñoo wax te ñëpp réccu mag bi nee na wa arghabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya maa alxayaati walaw suwayatan faqat li yaamalu saalihatan in gafalu mooy ñi faatu ñëpp ñëpp am moom génnewu ci kenn koo yaakaar ne moo tax ñuy wax taxul ñuy wax moo tax ñuy wax al amwaat li ñu gën a bëgg ñoom ñoom ñëpp mooy dellu si waat àdduna ndax ku faatu amatut lu muy mën a def lu koy jariñ dara xanaa li fi bay woon ak luñ koy mandat di ko yónnee yàlla na fi bay ñoo xam ne nag tàmmal na leen lu baax ba mu ñaane yàlla naan nee na ñëpp koo ci laajoon tey loo gën a bëgg dellu si àdduna kese ak lu mu gàtt ñu mën fay def lu baax delluwaat ñeey de ci lañ kenn ki xool na xool xam ne mbiram nar ta jag ndax ñam doon yaakaar ñëpp ak ñam doon dégg seeni tur ñëpp xam na ne ña nga fa waaye xamut ku koy laaj te mën naa ko ci gis mën naa lijjanti mën naa lijjanti loolu misaalum àdduna la demaguma fa bay xam na muy demee waaye misaalum àdduna la léeg ngay dem ci am réew xam nga ne diw fa la ne waaye doo xam kooku laaj <coughs> waaye wóor na la mi ngi ci dew saa su ne nga laaj diw ana diw mën la yii kooku ba ma ñëwee ci réew mi la gisanteeguñ xamoo ci lu mu nekk kooku li muy rëccu ku ne xam na ko ki nga xam ne li ki nga xam ne moom mooy keneen ki mooy li muy rëccu moom lu teewoon mu gën a def lu ëpp la mu doon def ci lu baax ndax moom itam la gis njariñam su ko defee xamul kañ la fay jóge te wóor na ko ni lii bu jeexee moom xamul nu muy defati foo xamul kañ la fay jóge yóbbaale fa ab yóbbal lu mu bari bari bari mëtt yéem yal nañu yàlla defal dégg ak topp te mosuñu seytaan nekk pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina